African Indian dañ koy ci loxoy suñu borom yalla waxon nako au début Sénégal match bi mu football musul football mu match bu melni kon tay buñu yalla yàlla ndam duma ko lié mu ak sama deuxième mandat parce que c'est à part je cherchais un mandat pour travailler pour les populations de Bambilor yalla jox na mais victoire bi du victoire wu man ma jóg ci outil ji victoire mais c'est le peuple sénégalais en premier chef le président de la République ñom ñoo jóg mettre équipe bi condition yi ñu musul tek équipe pour ñu mëna jël ndam li mais tay képp kuy sénégalais je dis bien et je pèse bien mes mots képp kuy doomu Sénégal au-delà même doomu Sénégal doomu Afrique ndamal Sénégal gi yaakaar naa kenn ku ci ne am nga ci mbégte donc mbégte la moo xam ne nañ ko gërëmee Sénégal nañ ko gërëmee it njiitu réew mi mi nga xam ne tey ñun am nañu luñu ñu yëg ci suñu biir mais ñun xam nañ ne momit amna lu mu yëg ci biir ci biiram loolu dafay permettre sénégalais yi xam ne ki nu yàlla jox muy président Macky Sall gis-gisam weesu na ak xalaat yi nga xam ne moom la yenn doomu aadama yi am ci moom. parce que tey dañu gagné Coupe d'Afrique une première ñaata prédécesseur am moo fi ne duñu jeex mais bi gën a war a yéem sénégalais yi mooy kan moo jël Coupe d'Afrique bi mooy Alioune Cissé critiqué par tous les Sénégalais et il n'a jamais changé de système il n'a jamais changé d'équipe te aujourd'hui voilà la victoire la victoire acquise ci kanam ñan ay européen si je parle d'européen, c'est Kéros, l'entraîneur de euh, c'est un portugais un entraîneur ñi mu dajal le système de jeu bi Aliou Cissé a yàlla may ko ay ndaw yoo xam ne dañu gëm Sénégal gëm seen Sénégal. kon dañu nan jaaraama alou Cissé en tout cas man ma première satisfaction ci alou Cissé la dem mu wóor ne bu doon benen nit bayina équipe bi bu ne tubaab bu ne andi nañ ko fi mais voilà le résultat du sénégalais parce que être sénégalais motax nga mën xam sénégalais alou Cissé nak c'est un sénégalais pur et dur xamna équipe bi xamna na yi xamna nan la leen di tege donc ñun li ñu jëk a def mooy gërëm ko gëreum ko sant ko mais gëreumit vraiment équipe bu football bi ñi nga xam ñoo néwon sur le terrain. ils ont donné leur sueur leur peau leur sang pour cette grande victoire donc nous, vraiment ñun Sénégalais nous avons leen amal njukkal j'ai bien euh, retenu le mot du président de la République que si nous dinañ leen teeru teral leen parce que nous avons fait pour la République et ils ont gagné devant l'Afrique et aujourd'hui nous avons gagné Égypte les cinq pays les plus développés du monde euh, de l'Afrique. Égypte et puis et puis fait plus de 100 millions d'habitants. et aujourd'hui nous ñooñu le Sénégal gagné donc le Sénégal il faut que nous gëm suñu bop xamna suñu ci yi ñu nous devons être toujours devant devant le président Macky Sall avons une vision au Sénégal bi qui permettre ndaw ñi calculer leen tey ñu football ay xale yu ndaw lañu xale yu ndaw comme seen bopp ñii France comme Sénégal comme na sait papa et sénégalais lañu ñu ñëw équipe du Sénégal donc les binationaux vraiment sont à remercier sont à féliciter parce que tout récemment def nañ benn reportage ci biir nationaux yi ni ñuy joxe dañuy joxe ku mel ni Abdou Diallo ku mel ni Bouna Sarr aujourd'hui mais xoolal ñooñu wax loo leen olof sax mënuñu ko ndax fa ñu juddoo fa ñu yaroo mais tey ku leen gis da ngay xam voilà le sang sénégalais waaw donc li ñu li ñu li ñu mën leen mais gërëm it la population de la commune de Bambilor lii dafay wane ne bu bu bés jotee ñun ñëpp dañuy bokk bés bi tay Sénégal képp ku ñew tay fi ci fan zone bi mëno fi xam kan mo and ak maire kan mo le ak président Macky Sall ku andul ak maire non parce que c'est l'intérêt national qui était en jeu et bu l'intérêt national taxawé nak ñun ñëpp dañuy jog bokk ndey bokk pour que lolu ñu mën ko résoudre may lancer un appel à la jeunesse que le 22 inshallah, nous mettrons à la disposition de l'ensemble des jeunes et des équipements pour nous porter le maillot du Sénégal pour nous dem ñukkali ji gaynde yi au stade du Sénégal. Et sur ce, nous demandons à toute la jeunesse de s'organiser dans la commune de Bambelor. Et quel que soit le moyen nous parlons pour DEFCO, pour que nous sachions le Sénégal qui gagne, fofu lañu tollu satisfaction bi ma am en 2019 bi ñuy éliminer ci fan zone bi yalla def comme je bobu j'étais à Paris j'étais en mission en Côte d'Ivoire jogé Côte d'Ivoire dem Paris la finale je l'ai manqué cette année à Paris mais ren tay la que fi ma voyage bi ma il faut pour assister à cette victoire ndax suis le premier magistrat de la commune de Bambelo. lu ni Sénégal de final vraiment ma première occupation, moi, partage ce bonheur avec les populations de ma commune. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et voilà la réussite. Et cette réussite, l'intigum, moi, je suis à la jeunesse. Je suis à la commune de Bambilon. Je suis délo la commune de Bambilon. ñëw pour ñëw seetaan ci lii ndax ku ne nag mënoon na ko mais dañ nañu à la place du 27 pour partager cette victoire pour seetaan match donc merci à la jeunesse de ma commune Je vous jëf